ñoo ngi leen di nuyu bu baax yéen ñi nga xam ne yéen ñuy safoo ak di ñu bàyyi xel saa su nekk suñu waxtaan bi nag tey ñu ngi koy ànd ak coronavirus monsieur Corona fi ñu tàmbalee waxtaan bi mooy ñan ñooy saw askan. maa ngi juddoo ci famille boo xam ni ñu ngi koy tuddee rek virus yi lor nit ñi samay maam nag am na ñu ci tuddee li anglais yi di wax black def spanish flu sida ebola. jërëjëf monsieur Corona bëggoon nañoo xam nag sa gaawaay bii lan moo ko waral. damay dugg man dong ci am mbooloo ci diirub 24 heures rek mën naa génn doon ay millions yu baree baree bari. d'accord monsieur coronavirus lan moo tax ñu lay dàkkante dàkkantale ci turu Covid 19. waaw loolu benn tënkin la rek ci li ñuy tuddee coronavirus. d'accord yow kañ nga njëkk a feeñ ak ci man réew nga njëkk a feeñee. man bi may feeñ mi ngi nekkoon ci décembre atum 2019 ci benn ville. bu ñuy wax Wuhan ca Chine. naka ngay tuxoo maanaam say déplacement. damay tuxu nag waaye du man maa yóbbu sama bopp dañu ma yóbbu rek di ma jàllale. mën naa jaar ci sëqat mën naa jaar ci tisool yi aussi. d'accord monsieur Corona waaw naka ngay def ba dugg ci yaramu doomu aadama joo xam ne dara jotu ko woon. mën naa aw sax ci gémmiñ wala ci bakkan wala sax ci ay bët. d'accord ñaata fan ngay def ci aw yaram ngir ñu mën la ràññee. luy tolloog rek. ñaari fan jëm ba fukki fan ak ñeent wala sax juróom juróom benn fan ba juróom ñaar d'accord lan mooy sa bëgg-bëgg luy jubluwaayu dugg gi ngay dugg ci yaramu nit ñi damay song rek jéem ba am accès ci oxygène bi fatt ko d'accord yan ñooy bërëb yi la gënal yow bërëb yi nga xam ni dafa tooy di sedd lëndëm lool d'accord monsieur Corona yan ñooy say màndarga nag. xanaa aw tàngoor wu bari. ànd ak sëqët su wow. ak di sonn di tayel. fii nag dama lay laaj. naka la ñoo xamee ne jàpp nga nit ki ak fan nga koy jàpp. waaw mën naa aw ci bakkan bi nag. jaar ci put gi di ko xasan. ba wàcc nag ci poumon yi yàq ko na d'accord lan nga gën a bëgg. bëgg naa lool buuxante bu bari. ak di jaxasoo. ak ñàkk set. place yi nga xam ni day tooy ànd ak sedd. ana loo gën a bañ nag. xanaa des ci kër gi. ak kenn ku ci nekk di setal boppam di setal béréb bi muy nekk fexe muy fendi di feex d'accord mu Corona ndax da rey képp ko dugg ci aw yaramam déedéet waaye ci 8 pour cent yi may dugg mën nañoo wér sax te duñu jaar hôpital parce que jëloon nañ mesure de prudence yu mat sëkk waaye nag bu may rey li may rey ci ñi ma jàpp 2 ba jàpp 4 pour cent ñoom lay rey ki ngay rey naka lañu koy xamee. te ëpp ci ñi may rey mooy ñi nga xam ni dañoo dem ba jëm mag lool ak ñi nga xam ni dañoo yor yenn feebar yi. lu ci mel ne que diabète. jërëjëf ndax di nga jàpp xale yu ndaw yi. dama yërëm xale yi lool lu ci gën a bari nag dama leen di bàyyi ñu dem seen yoon waaye li gën a wóor nañu ma moytu ndax di ma xamal naka laa lay wattandikoo aha kay xanaa nga des ci kër gi te wattandiku jaxasoo ak booxante na raxas say loxo lu ci lépp loo xam ni dafay rey microbe su fekkee da nga bëgg a tisool yi wala nga bëgg a sëqat na nga jël mouchoir teg ko sa gémmiñ na nga bàyyi benn espace benn mètre lu gën a tuuti ba lu ko ëpp ci sa diggante ak diggante ki nga taxawal di wax ak moom kër gi nag nay set wecc ak fi ngay dund loolu mënta ñàkk matériel yi nekk ci kër gi fexeel muy set wecc d'accord monsieur Corona ñëpp xam nañu sa xar kanam gu bon gi waaw ndax am nga xar kanam gu baax. moonte am na famille yu bari daawuñ toog léegi dajalewaat naa famille yu baree bari ba ñëpp a ngi toog di waxtaan kenn dematul fenn setal na réew yépp ak kër yi fexe naa ba ñépp xam ni dañoo néew doole lool ci kanamu yàlla seen boroom fexe naa ba nit ñi ñépp ñu ngi delluwaat ci seen boroom di jéggalu di julli di def lu baax te yaakaar naa sax mën naa doon lu dëggu ci ñoom. d'accord. li ñu jeexalee nag mooy ndax am nga loo ñuy laaye biir. ndenkaan bi mooy ngeen des seeni biir kër ba keroog ma fi jóge restez chez toog leen seeni biir kër te wattandiku jaxasoo bu bari bi lu ko moy dinaa dugg ci yéen ñépp te bala ma leen a bàyyi faagaagal leen. jërëjëf ci waxtu wi nga ñu may yow monsieur Corona jërë ngeen jëf.